ci lu nga xamante ni dañ ko jàppee mu scandale bu nga xamante ni dafa am ci commune Pikine Nord scandale bi nag mi ngi tax euh, maire Amadou jara ci li ñu wax nii dafa signé benn protocole d'accord ak benn promoteur pour mu exploité théâtre de verdure bi ci protocole d'accord boobu mu signé ak promoteur bi pour mu exploiter théâtre de bi nee na fukki at ak juróom la ko ko jox pour promoteur bi moo ko war a gérer moo ko war beneen bi ci tegu nee na ci wàllu koom li fiy jóge ci théâtre de verdure bi ak juróom promoteur bi lépp lu fi génne ci wàllu koom moom moom moom juróom ñaar fukki ak juróom ñun Pikine Nord ñoo moom ñaar fukki ak juróom bi mu paree ci loolu ñu laaj ko ne ko promoteur boobu nga jox loolu ñaata la def ci théâtre de verdure bi pour mën a am contrat wu fukki at ak juróom di am cent quinze pour soixante quinze pour cent ci li fi jógee ci théâtre verdure bi mun nañu guma koo wax ndax waxtaan bi may waxtaan ak promoteur bi pare guñu ci wàllu xaalis ba ma xam ñaata la fi mën a def donc ñu jàpp ni loolu lu ko gën a doy war amul parce que boo joxee nit exploitation théâtre verdure bi ci fukki at ak juróom ne ko yaa am soixante quinze pour cent te ba léegi jubóogu leen ci li mu fi war a def scandale mënu ko gën a rëy te loolu Amadou Diarra moo ñu ko wax moo ko waxal boppam ñu yore audio yi loolu moo ñu koy interpellé ci loolu ndax loolu yaakaar nañ ni wax dëgg yàlla catastrophe mënu ko gën a rëy interpeller aussi autorité réew mi yëpp ministre de collectivité locale ak toutes les autres administratives pour que wax dëgg yàlla ñu jàppale ñu ñu leeral mbir mi ndax théâtre de verdure bi patrimoine culturel la infrastructure publique la nekk patrimoine culturel nekkoon benn cadre d'expression bu nga am te ni wax dëgg yàlla moom rek la artiste Pikine Nord amoon pour mën di ci yëngatu bu ñu toogee ba tey jàpp ni nit da koo donte maire la wala jàpp nit da koo jaay donte maire la wax dëgg yàlla bu doon yuuxu sax war naa mën a jub moo waral tey je pense sunu dajalo bi yëpp boo xoolee ñi fi daje mooy les forces vives de Pikine le président Lamine Gueye est là xëy na tey sax dafa maa jox cëru def ma porte parole du jour waaye li may wax ni moom wax dëgg yàlla moom ko waroon gën a ma wax xëy na yeneen jataay ñaam aussi dina porter parole bi ci au nom de tous les Pikinois ndax je pense que combat bi jàpp nañu c'est combat citoyen lay wax moo tax ma la loolu moo tax ñu tuddee ko scandale parce que bu doon conseillers municipaux yi bi ñu mais dañoo dem seeti ay conseillers municipaux yu nekk ci maire bi seeti ay adjoints au maire yu nekk ci maire bi seen kër waxtaan ak ñoom ñu ci bëri sax dañoo nuñu ay 75 pour cent 25 pour cent yéen ñu ko yëgal ñun xamuñu ko woon donc bu ñu ba maire war a mën a signé accord bu toll nii te membre conseil municipal kenn amul réponse boo ko ci mën a jox yaakaar naa ne scandale mënul gën a rëy loolu moo tax aussi ñu koy woo di ko interpeller pour mu leeral mbir mi di woo aussi autorité dëkk bi wax dëgg yàlla pour ñu jàpp ci pour mbir mi leer ndax aussi théâtre de verre bi euh, wi la askan wi ko moom fi la ko fekk buy dem fi la koy bàyyi donc war na ko bàyyi ci bàyyi bu nga xam te ne bàyyi mucc ayib ni mu ko fekkee woon mais bu ñu ko sànnee ba aussi xëñ na ci ay intérêt boppam moom la jàpp parce que ay intérêt boppam rek moo doon tax mu def li ci ay intérêt boppam mu perversion baa mu jaay ko aussi suba ñëpp ñoo koy rëccu loolu moo waral jugu taxawaay bi ñu taxaw nii pour wax dëgg yàlla waxtaan ci fexe ñaan daal su moom ci kàttanam mu defal ñu ci ndam utal ñu ci solution si loolu nga baal ma est-ce que jël ngeen benn engagement pour mi ci wàllu yoon waaw incha allahu rabi wax dëgg yàlla je pense que li ma wax rek ñi ngi soog a euh, soog a wax ni ci wàllu presse lép lu ci lu lu mu laaj aussi ci jumtuwaay ak taxawaay ak yooyu ñun kilifa yi fi daje yëpp moom laa wax léegi yàlla président Lamine Gueye ñun ñëpp ñu ngi fi daje ak tous les responsables des des autres partis la société civile les mouvements citoyens les associations ñëpp ñoo fi daje dinañ daje waxtaan xool yan yoon lañu war a mën a jaar pour lijjanti mbir mi incha allah lu ñu yoon may pour ñu lijjanti ko bu neexee yàlla suñu borom ci kàttanam dinañ aw